fas lu li dee teqale wax xat furidat farataaleef na bi mawtinil qura ci dëkk dëkkam njéendi dëkk bu mag xaryatun tataqarra bihimul xarya farataal nañ ci ñoom salaatu jumaa te julleeg jumaa alam googu topp na li xutba te ñeel xutba bi jaamee ngi defee ko ci jumaa ja ala muqimin war na aji sax man atara fekk amul ngànt xurin koo xam ne gor la xaribin ku jege bi ko farsax ci mel ni ci farsax mu ñetti kilomètre sakkar koo xam ne góor la jigéen wàcc kon juma lay jàngale mu bokk ci xusuusiyaat yàlla jagleel sayyiduna muhammad tax xeetam wi tey de jiitu woon amuñu woon jullig juma nañ julli waaye ko woon julli juma xeetu yonent bi dong ñoo ko xam sallallahu alayhi wa sallam yonent bi teel na koo xam ba muy nekk màkka waaye jékkuwutoon ci man koo taxawal moo tax ña doon jaayanteeg moom ca xaq baat ya bàyyee ko woon fële ca ba muy madina ñooña dafa leen a yónnee woon benn ustaas mu leen di jàngal mu sar Umayr ak ak ak ak ñoo xam ne ay ay ay ñu gaaw ñu tuub lañ woon teel a teel a am xam-xam ñooña taxawaloon nañ daan julli jumaa ñoom ñoom ñoo njëkk a julli yonent bi jumaa moo tax buñ la laajee ci xeet wi farata joo xam ne xeet waa ko njëkk def yonent ba nel mooy jullig jumaa jullig jumaa de yonent bi xeetam ne ko njëkk a def ndax booba jékkuwutoon moo tax bu muy demee nag bay gàddaay ba ñëw ci Ali Amrin daloon ci kër kursum um ibnu mi bàyyi ko fa dem ba ci wenn xuru ñu tuddee raani taawu foofa la taxawalee jullit juma fa la ko Ali ibnu Abi Talib fekk dab na ko fa la ci kër kursum ibnu hat mi mu ànd ak ñoom ñu bokk taxawal jullit juma ca xuroo ñu tuddee raani taawu mbooloo ma julli woon ca gannaawam téeméeri nit lay tolloog xutbaam googu ba léegi téere yaa ngi ko bind xutba gu njëkk xutba ci jumaa ja su ko defee moo tax ba mu demee Madinatu rek mu dem njëkk a taxawal mooy jumaa ja avant muy dali kenn këram ba mu ñëwee ba gëléem nga goor fa fekk ma ne bàyyi leen ko arqu zimamaha fa innaha zaatu amrin ba gëléem gi xegg foofa ca bar marbat ba weeru koy tàndarma ba mu goor fa mu door a wax ne hahuna mansil ba mu demee nag ñu euh, gars yi njëkkalante abu ayub jël bagaasam yóbbu këram ba mu dal fa dafa ne fi sama gëléem góoroon ku ko moom ñu ne ko ñaari jirim ñu mu tudd mu ne sëxloog suhayl mu ne kon xay kon dana yomb mu woolu leen ñu ñëw ñu ne ko waaye dañ la koy may mu ne leen déedéet dama ko bëgg a def ci yoonu yàlla jaay leen ma ko ñu jaayee ko fukki dinaar ak benn xale xaalisu aboubacar moo ko jënd boo jëlee dinaar bu ne muy vingt mille francs jëndee ko fukk ya ak benn daanaka quatre cent et quelques côté yooyu lay doon gisuñu xaalis léegi nag mu mu mu mu mu fa la taxawal jumaa ji nag commencé ñu julli jumaa pincam yàlla jumaa jooju nag war na bépp dëkk bu mag moo lii mooy bala ñoo taxawal jumaa ja ma jumaa yi toppandoor bala ñoo war a taxawal jumaa nañ ko taxawalee ci madinatu dëkk village wala ñu taxawalee ko ci asimatu muy capital wala ñu taxawlee ko ci xariyatu boo xam ne tataqarra bihim maanaam ci jamaatun boo xam ne tataqarra bihimul xariya ci ñoo ñu war a taxawal juma ci ñooñu fo ñoo ñu war a xam juma am mbooloo ma nag nu mu war a toll dañ cee werante ci mazhab bi Malik ñu ne ñeen fukki nit ñoo xam ne gor lañ góor lañu masoor nañ ñenn ña ne mbooloo moo xam ne bu leen armée d'abord benn wàll ga dañ mën a taxaw xeex ñenn ña défendre leen ñenn ña taxaw julli ñoo tax ñu ne daal mbooloo may waral salaatul xaw fi mbooloo moom mooy waral nga war a taxawal juma waaye léegi dëkk yoo xam ne sax xaajagu mat loola toppandoor rek dëkk sàngam seen juma gi nag rafetee dañoo war a am juma nangam ak nangam waaye booy buy toppandoor tamit te nga yëg ne ñu juma jàpp ci dëkk bi yëpp mënuñoo julli ji nga ne nañ ko defal ngir loola ba tey tamit baax na moo tax kon euh, bi mawtinil qura la wax dëkk dëkk dëkkam njëndi dëkk boo xam ne mbooloo dëkk moom moo fa dëkk te dëkk ba tamit bala ñoo tabax jumaa na fekk ñoo xam ne gannaaw bi ñu xamee xóolu seen bopp bu bu leen armée songoon ñenn ña mën nañoo xeex mën taxawal jumaa ja ndax bu dañoo bëgg jumaa bu ñu ko xasee taxawal ci dëkk ba bay àdduna tukki duñ ko faatal benn ñaareel bi tamit gannaaw bi ñu xamee sécurité booba ci mën a défendre seen bopp na fekk ñu mën a xam dund dëkk boo xam ne xam nañ bayukaay xam nañ ndox ba duñ dem dëkk bu xamul ndox ci gent la jëm dëkk ñu def jumaa kenn du ko gental di wan dëkk ba gannaaw di wan jumaa ji gannaaw dëkk bu ñu xamul bàyyeekaay ci ngent la jëm kon nañ xam lu ñu mën a fàggoo seen ak dund mën a xam lu ñuy soxlaa ci seen ndox ak yu ci xaju courant moom yeneen la bu ñëwee gën a baax bu ñëwul tamit li ko mën a remplacer am na waaye dëkk boo xamul ndox dana gent dëkk boo xamul bàyyeekaay këll yaa kaleera ya mënuñ koo teg dana dana dana gent këll yaa kaleera yi neexut a jëlal de <laughs> dégg de moo tax mu ne kon fas luy teqale wax bi ma xat furudel farataale fi bi ma tinil xuraa ca dëkkam njënd salaatu jumaatin julleeg jumaa talaat boobu topp na li xutba tiñu xutba bala ñoo jullee dañuy xutba bi jaami ñu defee ko ci jaami ba mbooloo mu dajee rek ci mazhabu malik mënuñoo julli jumaa ci bayaal ci ak ndend abu xanifa ñu ne mën nañoo julli ñu ne ma jumaa ji yontu njëkk a julli ci ndend la ko defal moo tax ñoom dañ tëj sa prison ya te amuñ jumaa dañuy taxaw foofa ci ba dem ci européen yi seen kaso yoo xamul jumaa dañuy dañuy mujj dajee rek julli seen juma. ñenn ñu bëri moodu moodu yi amuñu benn ki dañu jël benn saal rek wala ñu jël benn place rek julli fa juma loolu mën bu Abu Hanifa la waaye buy Malik bi jaami'an lay doon. kon fañ koy defee wax na ko lay tax ñi mën koo def wax na ko ñu koy def nag mu ne ala muqimin war na aji sax ku sax musaafir jën koo xam ne da ngaa tukki tukkee mu wàññi jumaa warul la waaye wér na la nag man asara ko amul ngànt muqim boo xamul ngànt kon boo xamee ngànt waa wëratul la xulil ngay gor jaam génn na jaam jumaa wërut ko waaye wér na ko xaribin ku jege bi ko far bi ko farsaqin ci ñetti farsaq ku jumaa ji sori dëkkam baag foofa ñetti kilomètre jumaa wëratul ko koo xam ne góor la jigéen jumaa wëru ko waaye wér na ko nag moo tax mu ne wa aj sa at na xëyra ñeneen ñu dul ñooñu ñu dul ñooñu mooy jaam ñu dul ñooñu mooy jigéen ñu dul ñooñu mooy musaafir ñu ñooñu ñooy xale naa waa waaw waaw xattunda bu def na sopp ko sax banaa wax ja ya jibu dana war nag a sax yu dox ilayha gëm ko jumaa ja indi ni daa fa nodd ga bu noddee rek noddam ñaareel nag genn nodd rek fi newoon eh, dañoo war a dem jumaa ja muy noddam ñaareel gi lañ ci nangu bàyyi jaay bàyyi lépp isa no isa minum jumaat fasaaw ila dikrillah noddam ñaareel ga Usmaan a ko sos bokku ci yim sos waaye yonent bi benn nodd la fi bàyyi woon taxaw rek ñu nodd mu léeg xam mu mu mu mu mu xutba mu julli loolu la fi Aboubacar bàyyi ñu noddu rek mu xutba ñu julli loolu la fi Omar ibnu Xataab bàyyi ñu noddu rek mu xutba mu julli waaye Ousmane moo sos nodd ak ñaareel gi ndax ba muy ñëw toog ci xilaafa ga dafa tombé mu dëkk mën a war a bëri ay sancaan dëkk ba bari ay gan lool koñ bu ne ña ngi ko sancee comme ni nga gis ñu mel Ndakaaru ak Mbuur ak Tuubaa ak dëkk yooyu ci ak xereñeem xam ne diine day ànd ak jamono mu ne buñ noddee genn noddu ñu bëri duñ ko dégg ñu bëri tamit dañuy fàtte bu zawaal jotatee rek nañ nodd nodd gu njëkk gi ñay waaj waaj ñay sangu-sangu ñëpp xam ne tey la àjjuma ji buñ demee ba ilimaan ji toog ñu door a nodd nodd gu njëkk ga ñu ko daan tuddee nidaawu zawra ñu ñëwoon na dim nidaawu zawaal zawaala guñ déedéet nidaawu zawra lañ daan wax booba dégg nga de moo ko sos moo tax diina ji sos kanu ca bokk yàqu dara ñu gën a man ahdasa fi amrina hada wala maanaam euh, kullu muhdasin bidaa da ngay yàq lu bari rek kullu dana matale kullu dana ñàkk matale léeg-léeg kullu ñëw matale lépp léeg-léeg kullu ñëw te du matale li kullu ñëw te du matale moo gën a bëri yaa ngi jàng ci alquran kullu yu ñëw te matalewut bëri na lool bokk na ca yonent yàlla ibrahim ba ne yow yàlla arini kayfa tuxyil mawta qaala awalam tu'min qaala bala walakin li yatma inna qalbi qaala fa xud arbaatan min attayri fa surhunna ilayka summa jaala ala kulli jabalin ala kulli jabalin la wax di ko léegi matala de yow yàlla wan ma ni ngay dekkilee ñu dee ñu mu ne ko rayal ñeenti picc mu ray piccam ya jàmba jóob ak tanak ya ca xaju mu ñette yàpp ya jaxase ko yàlla ne ko teg ko ci wépp doj fekk ñeenti doj rek waaye xam nga ne wépp doj dañ daju goor yu bokku ci woon tegu ci woon yàpp la waxoon daju kon yooyu ñeenti doj rek la waxoon waaye du doj yëpp fële ba mu ne maanaam réexun tudammiru kulli shay'in ngelaw la dafa xaal lépp lépp bokkut ca euh, lu tuutee ca bokk waaye du lépp li yonent bi ne kullu aynin zaaniya bët yëpp ay njaalo du bët yëpp bëti yonent yi duñ njaalo loolu buñ ko waxoon dana doy waar dégg nga de kon kullu dana ñëw matale kullu dana ñëw ñàkk matale olof sax amu na ci yaa ngi nii boo demoon tey seen dëkk ñaan ana waa ndakaaru nga ne ñëpp nga fa ngaa xam waa ndakaaru bay xam ñëpp nga fa mbaa waa Ndakaaru nga ne ñëpp nga ci jàmm da ngeen a mën a xam bay xam ñëpp nga ci jàmm waaye dangaa bëgg a wane ne ñi ma xam nga xam leen ñu ngi ci jàmm jeex na loolu rek la waaye ñëpp nga wax foofa kon kullu day ma doon matale moo tax kullu googu bi hadis bi ñëwee ne kullu bidaatin dalaala kullu muhdasatin bidaa wa kullu bidaatin dalaala dañ koo taxsiisal am luñ taxsiisal la ba koo taxsiisal mooy hadis bële man ahdata fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun ay mardudun alayhi hadis bi dafa ñëw ne ku sos ci suñ mbir yi ku lu ca ñu delloo la ko kon ku te sos lu te bokk nag ñu bañ ko tey bàyyi yi nag gaa yi sos ki la bokk moo tax saxaaba yëpp sos nañ ay biddaa ñëpp am nañ da gaa yi yonentu leen fi toog ñu sosi biddaa kenn mënu ci dara yonentu bee toog jiite nit ñi ne sami allahu liman hamida rafayatum nu rafia ne rabbana wala kal hamdu hamdan mu hamdan tayiban mubarakan ku ko ko wax loo moo ko sos yonentu bi siggi rek sëlmal ba mu sëlmalee pare ne waaw ku wax wax yooyu ñëpp noppi rafaatu ibnu ne ko maa ko mu ne ko li nga wax rafet fanweeri malaaka lu ko xëpp ñu ngi ñu njëkkalante kenn ku nekk ne maa koy njëkk a te moo ko sos kenn wax loo ko bilaal moo sos bi daaxat fu ne dafa war a kii rek fu mu tojlee rek jàpp waaye fu mu jàppee julli ñaar rakkaa yonent bi ne ko bilaal dégg naa sa dàlli karbet yaa ngay yëngatu ci sama kanam ci aljana loolu la mu ne ko man de lu ma ko fekkee xam naa lu ma ko may mooy saa yu ma toj le jàpp naa su ma jàppee ba pare tamit du ma def dara lu jul naa ñaar rakka toj le jàpp xam nañ ko ci diine waaye nag jàpp ne foo jàppee ngaa war a jul ñaar rakka duur luñ xam ci diine ji bilaa la ko ci sos waaye ndeke moom sa sos bi daal moo ko may martaba bu yaatu booba ci aljana nga de saxaabi yu bare ñu bëggoon a rey mu ne nañ ko may mu julli ñaari ràkkaa ñu bëgg laa rey nga ne naa julli ñaari rakka duur luñ xam ci diine moo ko ci sos waaye dafa bëggoon naa tëjee sama diine ci sama jëf ji sama bakkan nañ ko jëlee ci fekk maa mujj def lu baax fekk lu baax laa mujj def muy julli rek demee yi yëpp ay biddaa yuñ sos la saxaaba yu bare demoon ca àll ba di ñoon demoon njëggaani yàlla dogal ñu romb genn gàdd ñi leen laaj ñam ak ndox ñooña bañ doomi buur ba jaan matt ko ñu mujj yónnee ca ñoom ne ndax am ngeen ku mën a mocc jaan kenn ka jiite woon gàdd ga ne ah, kay mën naa ko dem jàng faatiha tafli ko jaan ja wàcc ne ko danga may weexal mu weexal ko gétt ak gàtt laaj ci téeréeb yàlla bi ne dañ may weexal ma door laa defal nangam duutum luñ xam ci diina ji kookaa ko njëkk a def moo tax ba nga ko defee sax xulxut koo lekk fa jiital gàtt ba ci yonantu bi ah, laaj naa tey ci diine yàlla jëli laaj laaj ko yonantu bi loolu la nettali ko comme ni ma ko waxee ba mu pare yonantu bi ne kon loolu moo ko ci sos demeet Aboubacar sos gannaaw yonantu bi dajale alquran dajale ko woon def ko kaamil Aboubacar a ko def loolu kon moo ko fi njëkk a def moo fi njëkk a sos biddaa xab xeex ak ñu tudd baatu seede bi di julli te mooñe ba ñu mën a joxe asaka Omar sax nangu wutoon mu jigi la door a nangu demeet euh, dégg nga euh, ñoom ñoom ñëpp kenn ku ci nekk sos nga sos nga ay biddaa moo tax kon daal euh, mokkal benn xadis boobu rek bëgg yóbbu suñ mag ñi safara wóorut moo tax mu ne su na sunna sunaa leef na xuslun sangu it a goog jokko na bi rawaaye ca dem nga dañoo bëgg nga sangu rek dem moo tax boo sangoo sangum jumaa lekk fa lekk gu xëpp sanguma yàqu na waaye yàqu dara na ci jumaa ji sa ca kii ba euh, mënta yàqu dara ci kii ba ca jumaa ja dégg nga de sanguma rek a yàqu su ko defee kon nag dañoo bëgg waaye boo fa mosee rek nag ñaari tib ñetti tib yàqu dara dégg nga de euh, nu di ba soppeef nañ tëx jiiruñ njolloor lu teel a dem waxaalu wa jamu la waxaalun ak melo rafet jamu boobu rafet na wa jamu la xaalun na melo wa rafet sol yére yu weex jumaa dañoo bëgg yére yu weex donte màgget na nga tuuroo parfum soccu du ko defee nag dem ca door a dem ca jumaa ja waxtu wu njëkk wa lañ bëgg yonent ne ko dem ci waxtu njëkk wa xam nga yoolam ku jaamoo gëléem waxtu ñaareel wa nag bu ñetteel ba gàtt bu ñeenteel ba ganaar bu mujj ba nag mooy nen bu mujj ba nag mooy ñëw fekk imaam ngay xutba wala ñooy ñi ngay taxawal mooy commerçant yi rek an taxawala rek ngay dégg door a dem dal seen sajaada julli ca nan lañ xam yaakaar naa nag kon yool bañ eh, ku doon commerce bàyyi fi giléem bàyyi fi nag bàyyi fi gàtt dem mujj xam nen sa commerce ba daanu nga kon lañ doon dawali la lañ lañ lañ rëccale moo ko ëpp da ngay wax ca kanam ne nag lii mooy jul jullig jumaa jullig jumaa defee ko ca mbooloo ma dafa war mënta nekk ci kenn waaye nag xat wajabat war na jamaatul mbooloo bi jumaatin ci jumaa jullit jumaa defee ko ca mbooloo ma dafa war mbooloo rek lay mën a doon mënut nekk kenn waaye nag leef na bi farata si julleeg farata julleeg farata moom defee ko ca mbooloo ma dañ ko sunaal bëgg nañ ko war a sax saxee na bi rakkaab ci benn rakkaab benn rakkaab boo ko xamee ci gannaaw mbooloo ma rek ci gannaaw ilimaan ji rek bokk nga ca euh, rakkaa ya bokk nga ca jullig mbooloo dégg nga de kon jullig jumaa defee ko ca mbooloo ma dafa war jullig yeneen julli yi defee ko ca mbooloo ma dañ ko sunaal waaye def ko moom kenn julli mbooloo xam na doole de salaatul jamaati afdalu min salaatil fardi bi bi satin wa ishrina daraja la yonent bi wax ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar am riwaaya bu ne ñaar fukki xaaj ak juróom waaye ñaari wax yi benn lañ xaaj dafa ëpp daraja rek moo tax bii di juróom-ñaar bii di juróom moo waral wanu di bat soppeef nañ iaadatul fardi baa mu kenn bihaa ca mbooloo boo julee yow kenn gis ma neen mbooloo demal nga julli promotion la ndax nga am yool yokkute laa maxriban du caakeen timis kaza naka nga a asan gexe mu wutiraa aji witaralam boo jullee woon gexe yow kenn nga xas ko witaral ba pare boo gisee ma neen mbooloo muy dootoo baamooti ndax yonent too waxoon ne ijaalu aaxira salaatukum layli witran na julli mu gi na witar mu gi yow nag boo julli xaatee bëgg a witaraat yonentu ne laa witraani fi layli kon benn rek timis boo ko jullee yow kenn ma neen mbooloo bul baamooti ndax genn ga mu fawi la Cheikh Khalil wax da dangay da ngay jooyal genn ga mooy farata genn ga ji sunna di naafila naafila ñetti a amul ci diina ji moo tax kon doo ko def moo tax boo ko doon def fàtte ko sax soo xamee ñaari rakka toogal taaya bu buy maam sëlma day nga sëlma mu jeex waaye doo dett di dem andi ñetteel ba